mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziara di leen jaajëfal beneen yoon tey ñu ngi fii ci Lansar ci dëkk bi nga xamante ni dañ fekk jigéen jigéen yu nangoo liggéey takkaayu euh, mu jigéen yoo xam ne tafarfakalla foo natt seen i fu romb na ko ñu fekk leen ñu ne ci liggéey boo xamante ni liggéey bu ci ayib la di matière boo xamante ni ñoom ñoo koy liggéeyal seen bopp di matière bu nga xamante ni ku ne mën na ko jëfandikoo euh, xale mën na ko jëfandikoo mag mën na ko jëfandikoo boo amee sa gan ah mën na la gën a yombalal ci teraanga gu nga xamante ni war nga ko defal ñu fas yéene laaj ci ñenn ñu leeral nañu ci matière bi nga xamante ni liggéey nañu ko yan anam lañ ko liggéeyee ba ko bëgg a jëfandikoo nan nga koy jëfandikoo daakalo ci kenn ñu laaj ko turam mu présenté wu wax ñi li nga xamante ni mooy matière. waaw maaleykum wa rahmatulah man Khoudia Cissé maa leen di nuyu dëkk fii ci Lansar commune Bourg léegi dama leen indil won ay bagages yoo xam ne bagage bu baax si ndir la ndax bi bagage boo koy lekk dalay yokk wérte dalay yokk cawartande dana raxas deret dana dindi feebar yu bëri si nit ndax fii ci seen suñu réew si la liñ ko liggéeyee yëpp fii la sax te nit loo xam ne si fu mu dëkk fii la sax mu liggéeyee ko fa ay fajam day yomb ndax lii ñu ngi ko liggéeyee dugub ceeb fa ñebe ndebedaay ñebe mboq suukar meew buy xorom moom lañ liggéey yi waaw te lii boo koy lekk baax na si mag baax na si xale bu xiiboon baax na si xale kuy nàmpal baax na si xale bu ndaw bu xiiboon ndax lii boo koy lekk lu baax si nit la feebar bu bu bëri du la sonal. waaw. waaw kay. waaw. waaw. ndax dana am ñoo xam ne danañ ñu indil ay sunguf yoo xam ne mhm. dañu lekk duñu xam ay sunguf yi lan la waaye sunguf bi ñun ñoo ko liggéey xam nañ les police nekk xam nañ ko. léegi sunguf bi nu mu tudd. sunguf bi ñu ngi ko wax Fariñ Aris. waaw waaw groupe Bëgg Daaru ñu ngi fii ci Lansar ci commune Gourko. département bi na Yoro Fouly ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm waaw di wax lii ñoo ko liggéey Fatou Souleymane Lo manière bi ceeb la ceeb bi mën nañ cee liggéey cere liggéey ci fonde liggéey ci caakiri man bii ma ngëm nag moom euh, kii la fonde la fonde mi bu la gan bettee da jël sa gaas rek nga tàngal ndox jàpp pour di sa sow muy lu gaaw. kon nag bu ñu ko waxee ci arrosé dañ ko bii dañ dañ koo araw dal da ko weer ci naaj bi eh, def ko ci sase yi. ndax bii ceeb la waaw bii moom ceeb la waaw ñu ngi koo jaayee 1000 francs ku ko bëgg nga ñëw fii ci Médina Lansar man sama numéro 77. 901 11 40. nga xam li nga téye rek ngeen ci waaw liggéey nañ si dugub càggadi mboq càggadi dugub càggadi maal liggéey nañ ci cere dugub cere mboq cere kii lépp daal xam nañ def nañ ci ñett matière waaw lépp daal def nañ ci ñett. yoo xamante ni bëgg bëgg rek nga def sa asalaamaaleykum yéen waa Sopp Faro man la Seyni Cissé dëkk Lansar bokk ci groupement bëgg daaru indi leen benn karaw benn araw buñ def ci ceeb bi ceeb bi nag ñun waa Lansar ñoo ko bay biñ ko bayee ba pare ñu jël ko wal ko def ko araw araw bi nag bu la neexee boo amee gan boo amee soow man nga koy dekkal defal ko ci boo amee sa ganaar itam bu la nexé nga def ci sa couscous américain loolu daal lañ leen doon wan. matière bi nan ngeen ko def ba liggéey ba mëna sew ñu ah loolu kay mom ci suñ biir la rek dañoo ngëb rek ñun génné suñ xalaat rek def ko daal mën naa do am couscous américain mën naa do caakiri buñ booleeg soow. kon lépp ci ak góorgóorlu daal. waaw waaw di ko ñun bëgg daaru daal ñoo liggéey dëkk lan ci commune wa rahmatullah nuyu naa leen bu baax siyaare leen di nuyu waa Farokh TV bu baax man la Seynabou Lo dëkk fii Lansar commune Bourko di leen présenté wu lii nga xam ne fonde dugub la ñu ngi si boole nebedaay bu baax lool tamit ku am sa gan rek demal nga wuti ko soo ñëwee ñu jox la nga tàngal sa ndox rek def sa fonde mhm. macha allah sa gan gi dina bëgg nga kontaan nga lii daal am na njëriñ. am na solo bu baax a baax ah baax na si yaram tamit waaw bu baax a baax sax. maa ngi leen di nuyu ku ne si ak sant man la Fatou Dieng dëkk Lamsar Bourkoum maa ngi fii si groupement bëgg daaru muy indi leen benn matière bu am solo nag muy cere ceeb cere ceeb nag dafa baax si wér-gu-yaram am na vitamine A am na vitamine B dafa baax si wér-gu-yaram bu la xew bettee man nga ko euh, jënd la li kaas rek après nga laalu même aussi tamit bu fekkee tamit da nga am ko xamanteni kéré cere dugub sonn si noonu mën nga ko jënd baana na si mag baax na si xale. lii mooy Fariharis bi ku ko bëgg man nga wote ci numéro bu ñuy wax 78 498 86 05 boobu moy sama numéro ku soxla rek boo mo xooyee ci bop dag ma dag nga bokki mo ngi nonu ñoko ko ci programme bi nga xamanteni do nañ ko amal fofu li ci Lansar kon euh, ñu ngi leen di jaajëfal ñëpp ci and bi nga xamanteni ne nañ ko ak yeen ci programme bu am solo bu leen doon bëggoon dëgtal ñu ngi leen dox di dajé ba ben inshallah merci